asalaamaaleykum wa rahmatullah ami fidèle internaute Sénégal set ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax ak univers info ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen jox seen wàcc waaye ba tey ci préparation li nga xamante ni moom mooy Mawlu édition 2024 fii ci biir ci Tiwaawan di dëkku Seex Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ñu ñëw nag seet fi suñu doyen suñu kilifa koo xamante ni àdduna ràññee na ko muy doyen Ass Ndao buñ ko waxee nag dañ ciy toftal li nga xamante ni moom mooy borom Ndoukoumane xëy na loolu mooy signature bi donc ñu koy nuyu di ko ziar bu baax a baax di ko jox waaye jërëjëf jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, ñu ngi leen di fay di leen wax waaleykum salaam wa di leen sant bu baax di leen gërëm ci seetsi bi nga ñu seetsi vraiment ak ni dëkk bi xatee waaye nag euh, jar na ko ndax ma gàmm gi moom wax dëgg yàlla gàmm la gu nga xam ne ki ko woote woon yiw rek la yéene woon nit ñi moo tax euh, ñun ñëpp ñu war ci sonn euh, ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla télé bi yàlla na dem ca kaw ca kanam ci barke alxuraanul karim barke mawlid bi et eh, vraiment di leen déglu ci question yi. macha gis nañu at bu jot eh, gàmmu kii dafay jël beneen dimension si ossature bi ci wàccaay bi ci préparation bi mun nañu wax ni sax balaa des jours yi di mat daanaka ñu ngi ci biir gàmmu gi. Mm-hmm. waaw alhamdulilah rabbil xam nga léegi comme ni ñu koy waxee rek yàlla moom li muy wax mooy ci lu baax ku koy def kanam rek lay dem loolu moo feeñ ci gàmmu gi. Euh, boo xoolee gàmm gi année buñ jot rek day gën a yaatu gën a xumb gën a bëri nit euh, loolu la borom doon ñaan moom bi mu koy wootee yiwu nit ñi ak xéwalu nit ñi rek moo taxoon mu woote ko nit ñi it wuy si ko ci euh, comme ni mu ko waxee rek ñu teg ko ci sunna teg ko ci dëgg teg ko ci njub loolu rek la mosa a woote moo tax vraiment gàmm gi moom ñun dañu bokk ci ñi nga xam ne Eh, dañu jàpp ne lu fi waay def rek ñun nga ko defal ndax ñun Tiwaawoon mooy suñu naanuwaay depuis suñu juróom-ñaari maam boole koog ñun lu ñu am rek fi la nekk parce que suma yaay ngi fi ak suma papa ak suma rak ak suma mag xam nga dëkk boo fa amee loolu ñu tëdd ci baxiya e eh, foo xiinee rek fi ngay taw si eh, loolu moo ñu andi ci gàmmu gi ak it comme ni nga ko xamee rek ut si yiw ut si barke ut si xéewal parce que ki ko wootee kenn ku ne xam no nitu yàlla bu mag a mag a mag la eh, moo tax lii mu wootee daal jàpp nañ ne képp kuy julli rek ne ci réew mi da nga man ko bu bés bi jotee da nga fi ñëw aussi am nañu trésor bu mag muy euh, jumaa ji nga xamante ni daanaka yemb na mu nekkoon ci loo xam ne bokk na ci mbébétu képp koo xamante ni jullit nga waaye rawatina ngay taalibe wala ngay bokk ci kër gi bëggoon nga am lu mel nii nga xamante ni macha allah àdduna bi yëpp ñu ngi koy rafet. waaw alhamdulilah rabbil aalamiina e, loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax keroog bi nga xam ne xalifa bi mu ngi koy woote. bokk naa ci yaakaar na juróom-ñaar wala juróom-ñett nit yi nga xam ne ñoom la njëkk woo fii ci kër Famara sila yakar naa keroog maa fa nekkoon ak ku ñuy wax Modou ak sëñ ak Alaaji Dam Mansoor ak euh, Famara ak Makhtar Cissé vraiment mu wax ci yéenam wax ci bëgg-bëggam e ñu daal di tasaaroo kenn ku ne jël sa dërëm sa ñaar dërëm sa dërëm dërëm di ci def ba alhamdulilahi rabbil alamin mu toll fii ñi ngi ñaan yàlla yàlla na ko xalifa bi ubbi te yàgg koo jullee vraiment moom dama wax ne xilaafaam gi lii mu réussir e, ñi fi jaar ñëpp wax dëgg yàlla bëggee bëggeewoon nañ ko nii mm-hmm. waaye ci moom la ko yàlla dogale kon nag ñi ngi koy ñaanal yàlla daal yàlla na ko ubbi te jullee ko lu yàgg yàgg yàgg ci barke alquran barke Seydou Hadj Malick Sy radiyallahu anhu allahumma amin donc ñu gis ne tey euh, ki nga xam ne moom moo nekkoon jiitu réew mi mm-hmm. di son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay mm-hmm. ñëwoon na fi def si visite officielle waaye mm-hmm. aussi sàkku ñaan ci ki nga xam ne moom mooy la xalif général waaye aussi ñu am ci ay échange yu ama am solo loolu aussi bëggoon naa nga ñëw ci rek ci sa gis-gis par rappo ak contexte bi ñu nekk man nag dama bokk ñi nga xam ne Euh, gouvernement bi dama am ci ñoom ñewant ba pare am ci ñoom yërmande am ci ñoom yaakaar ndax damay wax ne àdduna euh, dëgg ak njub moo ko lal te gis nañu leen wax dëgg yàlla ci suñu njort ak suñu yaakaar jàpp nañ ni nit yi dëgg lañ nit ñu jub lañ moo tax tey it sëñ euh, Abdoul daf daan wax ne boo duggee ci gaal da ñaan gaal gi mucc waaye bul ñaan sa ëmb mucc oto sax boo ci duggee bu chauffeur bu nelawee bu catastrophe amee clients yi ñoo ciy ëpple kon nag euh, li ñuy mën a def rek mooy ñaanal ko yàlla moom euh, Bassirou Diomaye Diakhar fay di président de la République du Sénégal ak mboolem gouvernement bi nga xam ne Ousmane Sonko moo ko jiite yal na yàlla kattanal leen dimbale leen ba ñu nga xam ne fi bëgg a yóbbu réew mun nañ ko fa yóbbu waaye daal dafa am sama góor gu baax a baax a baax eh, ñu koy wax alaaji Bakar Diané ca Saalum dafa am sama xarit bu ko seeti mu ne ko ah réew mi ne dañ ne jub jubal jubbanti mu ne nañ ci boole juboo loolu dafa am solo ne nañ ci boole juboo parce que jubo yit dafa am solo xam nga réew daal xët-xët yoru ko réew yu ko yor mooy jàmm ak salaam ak sutura ak teraanga mooy yor réew bu ko defee ñëpp dal ñun ñëpp kenn ku nekk teg ci sa loxo ñu puus bu yàggee mu dem ca kaw ca kanam man daal loolu laay woo réew mi yëpp di ci woo gouvernement bi di ci woo opposition bi vraiment daal nañ mayente jàmm mais nag du tere kenn ku nekk la nga def nga tontu ci loolu vraiment kenn mënu ko bañ e moo tax daal ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla dimbal leen ñëw gi mu ñëw fiit bég naa ci ndax damay wax ne adduna ñaan moo ko yor ñaan dafa am solo te it dafa am foo xam ne bu ñaanukaay la eh, te comme ñoom comprendre nañ loolu moo tax wax dëgg yàlla lim fi ñëw eh, sant nañ ko ci gërëm ko ci waaye moom it war na sant kër gi gërëm ko sant tarixa bi gërëm ko ndax eh, tarixa bi tarixal bool bu nga xam ne seen ñaan li ci ëpp yàlla du ko delloo te yal na yàlla lim fi si yàlla may ko ko may ñu ko may ko mboolem ci ko dëkkee alors bi mu fi jógee def na li nga xam ne moom mooy discours à la nation. Mhm. tout à l'heure ñun ñëpp teewlu nañ ko mhm. li nga xam ne moom moo jëmoon ci wàllu assemble bi. Mhm. mu dissoudre ko jàpp élection yi le set novembre incha allah ñu fas yéene dem ci li nga xam ne moom mooy 15e législature. waaw loolu jàpp naa ne farata la parce que damay wax ne société sax buñ la ko dénkee la ngay njëkk a def mooy saytu ko ba xam naka la société ba demee. su paree nga jël ña nga wóolu liggéey ak ñoom loolu jàpp naa ne lu normal la te jàpp naa ne waa assemblée bi xaaroon nañ loolu réew mi xaaroon nañ loolu tey it loolu def ko diggee woon balaa mu yéeg kon ñàkk ko def kay mooy mooy mooy kawteef waaye def gi moom farata la et bu ko defee bu ko yàlla dimbalee mu am fa majorité bu ko defee lu mu bëgg a doxal rek doxal ko. askan wi mooy dafa annoncé woon le 13. Mhm. Euh, ki nga xam ne moom mooy le premier ministre dafa war a ñëw. Mhm. def si DPG. Mhm. le 12 mu le 12 mu dissoudre li nga xam ne moom mooy assemblée bi. waa xam nga comme li may wax rek xam nga ñoom dañuy politique effectivement euh, nit warut nangu dem fu ñu lay toroxalee te comme li mu leen yónnee barki démb dañ ko gàntal euh, bu fekkee yoon may na ko mu mu mu tas ko man pour man daf ko war a tas. man tas gi vraiment bettu ma te yaakaaroon naa ko te xam nga li ñuy wax ne sëlmaxa bu ne lañ sànniwante mi ngi toog ci xeer te dégg nañ Ousmane Sonko barki démb mu ne monsieur de Sassure munta am booba xam naa lii la xamoon et puis loolu lu am solo la parce que réew mi tamit ñu ko seetaan parce que crise 62 bi xëy na yéen fekku leen fi ñun fekk nañ mais xale lañ woon mais bi Mamadou Dia génnee ñu bëri gis nañ ko lii ko dal loolu dafa métti réew mi te jàpp naa ne loolu erreur bi nga xam ne moo gën a métti ci mooy jàpp bi ñu jàppoon ñu moom Dia ak ñoom Socé Mbaye loolu vraiment dafa góom la ci réew mi mu nga xam ne wéragut bëna nga kon nag lu ñu yóbbu ci loolu yàlla buñ ca àgg man daal lii mu def d'accord naa tas assemblée bi ñu watewaat mu am majorité mën a doxal ñu déglu ko li muy def boobaa rupture dina am parce que bu fekkee aussi da nga taxaw ne rupture nga woote. Mm. bu ñu amaatee majorité dafa mel ni l'histoire se répète. waaw mais xam nga comme li ñuy wax oto munoo ko dawal jàppaloo ci direction bi mm-hmm. bu fekkee yaay chauffeur bi te direction benn loxo ngay teg oto bi day daanu euh, rupture am na xam nga luy rupture mooy jàpp naa ne bu fekkee ne ñoom alalu réew mi yemale nañ ko ci réew mi lenn ne fa mu war ñu dugal ko ko fa. Mm-hmm. loolu man moom laa jàpp ne mooy rupture mais pour mu doxal réew mi ci assemblée boo xam ne dañ ko fa ëpp doole loolu gaw ma lu mën a nekk la te it loolu réew mi duñ ko nangu parce que comme fal nañ ko ba pare dañ ko joxe mooy yëpp pour mu mën a doxal nga xam ne bu ëllëgee du am dara lu mu layee lu tere lañ ko dénkoon mu doxal ko na ko war a doxalee. moo tax vraiment jàpp naa daal tas gi mu tas assemblée euh, vraiment lu jaadu la lu doon lu réew mi même même député yi sax ñu ngi ko doon xaar. Mm-hmm. Hmm. Euh, li nga xamante ne aussi euh, bëggoon naa nga àddu ci mm-hmm. muy li fi jotoon a xew semaine passée mm-hmm. ci affaire Cheikh Oumar Diagne ku ne mm-hmm. xam ne ne Sénégal ngëm-ngëm dafa diis. dafa dafa dafa am rôle boo xam ne. suñu kilifa diine dañ ko joué ci Sénégal. parce que mun naa cohésion sociale bi. wala cohésion nationale bi ñoom ñoo ko téye. donc am na ci kàddu yoo xam ne peut-être mun na ñàkk ci digg penc mi suñu bëggee garder stabilité waaw loolu mooy dëgg xam nga man dama bokk dama bokkul ñu bari xalaat. ci wàllu gëm ak diine parce que euh, yaakaar naa yonent bi yàlla dafa wax ne làkkum diinukum waliya diini kon catholique yi lañ mën a dëkkal dëkk ak yéeféer yi dëkk ak tubaab yi jàpp naa ne même bu fekkee ne murit nga wala xaadir wala tijaan wala satafiste wala wahabi yow yow defal li nga war a def bàyyi di ñi lu leen a def jàpp naa ne man personnellement gisuma ku ma mën a wax ba lii ma nekk ma jóg ci wax dëgg yàlla parce que gisuma ci lenn loo xam ne lu diina lii maandu nag mooy yow nga li nga gëm nga def ko bàyyi ni ñu nga doo yàpp naa Cheikh man li ma comprendre mooy lii ñuy wax nii loolu bu yàgg la ko waxoon waaye du bi mu yégee la ko wax kon nag euh, man jàpp naa ne euh, moom ci boppam dafa parce que réew yi tamit nag euh, pour mu dox kenn ku ne da nga koy bàyyeeg lëm gëm ndekam ñiy jaamu xërëm lañ mën a bàyyi ñu jaamu xërëm ñii naan sàngara ñu bàyyi leen ñuy naan sàngara ñii tux yàmbaa ñu di ko nëbbu ñu bàyyi leen ñu tux yàmbaa ñii nekk leen nekk leen yaa xayti mulaana ñi nga xam ne ay tariqa la ñu gëm sosu ci jàpp ci ba yàqee na leen bàyyi ñu jàpp ci kenn ku ne la nga nga jàpp ci xam nga loolu euh, day maye jàmm te it nag am na lu nga xam ne woy wuy këpp gaal kenn du ko woy ci penc parce que nag dafa am loo xaw ci tefes comme ni ko waxee dafa am loo xam ne jaaduwut jekkut rafetut parce que fii kenn ku nekk am nga sa digganteeg sa borom loo xam ne yow sa bopp xam nga ne bu tëddee ba guddi tiit nga ci kon nag kenn ku ne na toppatoo boppam ñu mayante jàmm wormalante respecté wante vraiment daal jàpp naa ne loolu mooy mooy may jàmm su fekkee ne léegi la ko wax moom lu jaral lijjanti la mais bu fekkoon yu ca yu yàgg ja la nañu teg loolu ci suuf te doxal comme ni nga ko sëñ mën taxaw ba waxee barki dem bi gars yi dañu mën jaru ko parce que nit ku nekk li ngay def yow la engagé te yaa ciy tontu te alquran daf ne laa yuhibbu laahul jahra bi xaw qawli mina suu'i wax ju bon kenn du ko jëmale kaw wax juy gàññ kenn du ko jëmale kaw wax ju yàq kenn du ko jëmale kaw man daal lu mooy sama gis-gis ak contentement mm-hmm. nga recevoir mën a def émission bi mm-hmm. ma bàyyi tàggatoo ak maa mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. maa ngi ko doon wax léegi ci interview bi ma doon def ci gannaaw ma ne xale yi foog ñu dimbale ñu ngir yàlla ak yonent bi des ci réew mi des ci réew mi terewut a tekki man mii man ak suma mag ak suma xarit dañu am visa boobu yaakaar naa quatre-vingt-six wala quatre-vingt-sept la ma ne leen xaar leen ma dem ñëw ma jógee fii dem Bruxelles ka fa seeti woon doomi alaaji ma xëri géey bii ci Thiès la ñu koy wax ma ba ma demee fekk wàcceekuñ ma minuit ñu wàcc ci suba bi ñu wàccee ba pare togg ceeb boo xam ne yàlla na yàlla dimbale ñu dimbale leen ñu barkelu ca ñu ne ña gont ma daggaat bii am sama beneen frère boo xam ne mu ngi woon Canada Vancouver ma dem fa ñëw na tey sax ci gàmmu gi bi ma demee ma fekk moom mu takk soxna su tubaab di dund nam ma jógee fa dem Hong Kong ba ma demee la ma yor ma jaay ko ñibbisi année boobu lañ dévalué bi ma ñëwee ma ne leen la ma gis gars yi daj ko fële ko daj fi am dara effectivement loolu moo tax ñoom ñëpp voyagé wuñ te alhamdulilah ba ñëw ñëpp am nañu teraanga te génnuñu réew mi bu bu ko defee nag bi ci des mooy état bi ci boppam la ñuy woo ci ambassade yi nga xam ne ñi ngi fi ñu waxtaan ak ñoom su fekkee ku nekk ci réewam mën na am quota bu leen jox ñu may ci xale yi visa ñu ñu gérer affaire boobu xam nga ki bëgg dem neexut dëkkal ki bëgg dem ak ki bëgg dee neexu dëkkal parce que ñoom lu dul dem demal leen koy gënal waaye wax dëgg yàlla jur nit ba mu am ñaar fukki at sa yaakaar na ci moom nga jëm mag mu xëy dugg ci gaal gi des ci loolu métti na ci xol waxuma ñoom ñi dem métti na ci ñoom mais ñun jur yi bàyyi loolu vraiment dara dara dara gënu ko métti kon ñu ngi ñaax xale yi nañ des ci réew mi te góorgóorlu jéem a yaxantu ñiy bay bay man ñun dañu doon bay dañu doon jaay ay madd dañu doon jaay ay kaani dañu doon jaay ay diwtiir donc booy da ngay da ngay def dara vraiment ñu ngi ñaan xale yi daal euh, mbëkk mi nañ ko teg ci suuf mbëkk mi du solution mbëkk mi du may jàmm tey téeméer yu dem presque moitié ba du jëkk kon daal wax dëgg yàlla ñi ngi ñaan yàlla di ñaan sëriñ si ñu ñaan ci nag parce que nag war nañ ci mën a ñaan pour xale yi seen xel yi génn ci dugg ci gaal gi parce que dugg ci gaal état munu ci dara parce que koo xam ne boo jógee fii dem Mbuur jël set gaal gu ndaw dawal ba ci digg géej gi nga jël gaal gu mag dem loolu kenn mënu la téye waaye wax ak yow rek lañ man len nag jàpp naa ne wax dëgg yàlla budul xaru jege na ko te man jàpp naa ne xaru la ni géej seddee ak li ci biir géej gi nu mu ñàngee nga dugg ci amuloo làmp amuloo dara booy génn di jommi loolu moom ne ko xale yi xam géej moom li fa nekk moo raw li ne ci àll bi kon daal ñu ngi ñaan yàlla ñoom it yàlla na yàlla delloo seen xel danañ tukki jaa am visa dem seen yoon état bi na ci taxaw ambassade yi fi nekk benn bu ne bu dee tant de personnes nga mën a joxe ñu jox leen ko ñu dajale xale yi kenn ñi mën a dem dem ñenn ñi mayul visa ñu la say say fere bien nga loolu loolu artacle la loolu kenn mësu ko gis bët bu set nga jël lu mat téeméeri nit ñaar téeméeri kenn ku ne nga jël ci moom quatre-vingt mille euh, doo ko ko delloo doo ko may visa loolu yëfu caaxaan la mais loolu itamit war nañ ci waxtaan mais daal ñu ngi ñaan xale yi nañ yërëm seen way jur yi nañ yërëm seen way jur dafa métti yar dafa métti sonn ci ba nga ñaar fukki at nga xëy rek dugal man sama papa dama mos a bis mu ne ma mun mu ne ma loxo bu ci ñu bëri jàppee doo ko wëndeel te xale yi ñi ngi wëndeel seen loxo yi kon seen way jur yi ci jàpp vraiment ñi ngi leen di sonal loolu daal vraiment man dafa métti suma xol bi yàlla xam na ko yàlla na yàlla dimbale leen dimbale ñu. Hmm. Hmm. merci sant yàlla nag di juri ci yonent bi. Eh, di gërëm waa Sénégal set ak eh, beneen bi univers info yàlla na ñu mel ni Al Jazeera yàlla na ñu mel ni France 24 yéen it yàlla na yàlla taxawu leen def leen ay mag def leen mag yu barkeel vraiment ñëw ngeen fi ñëwee ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm parce que gàmm gi moom lépp lu koy jëmee kanam rek lu ñu sonn sonn bu ngeen ñëwee foog ñu waxtaan ak yéen eh, bu ko defee yëf yi mën a jëm kanam di sant nag di gërëm sama sëriñ sëriñ Serigne Habib si ibnu Serigne Mansour ak Serigne Cheikh Tidiane si mu Serigne Mansour di leen ñaanal fan wu gudd ak wér di ñaanal xalifa beeg tariixa beeg bokk yeeg taalibi yëpp yal na yàlla defal ñu jàmm xewal defal ñu dégg ak topp bi jaay Seydina na sallallahu alayhi wa sallam merci beaucoup merci beaucoup ñu koy jaajëfal na mais malgré loolu may nañu temps ñu ñëw nii lay demee saa su nekk sur Sénégal 7 restez connecté ak Univers Info di jaajëfal Amath Fallou ah ak sàmba bi nga xam ne moom taalibe cheikh bu mag boobu di ko ziar bu baax suñu chauffeur boobu nga xamante ni moom it fu ñu sonnee sonn na mm. donc di leen wax ngeen continuer rek di topp li nga xam ne moom mooy suñu programme ba gàmm gi di jeex incha allah di leen toppal lépp loo xam ne activité la d'ici là portez-vous bien à très bientôt ngeen jëf